ci réunion bi nga xamante ni mbooleem seex yi aju ci seex seex Souleymane Niane ñoo koy amal fii ci Kër Massar euh, tey nag Ndiamé fi ñëw pour wan leen lépp li nga xamante ni tey xew na ci daje bi daje bi lenn moo ko waral mooy waajal siyaare mbudaay waxtaan ci lépp lu jëm ci waa caay wi ana naka lañ war a waajee mbudaay ak ban melokaane leen fa war a demee waaye ban yitte leen war a demee mbudaay réunion bi ñu ngi amalee fii ci kër Seex Moustapha Loum mu nekk soppe ci Ndiamé TV wax dëgg yàlla mu doon koo xamante ni euh, mbokk taalib yi miin la ci écran wu Ndiamé TV kon tey fii la ñuy teew ci Kër Massar ci kanam tuuti rek dinañ leen jox lépp li nga xamante ni tey mooy xew ci daje bi. la la. bu amee avion sax yele na ci moom ndax moom xamee na lim doon xamee googu nag moo tax yàlla ñoŋal ko ko képp ku xam yàlla waral dëkkal takkal yoral lu nekk ci teraanga ci yàlla Suleymaan yàlla mayoon na ko xat xatmu nubuwa mu yor elif maqama yonent ci aduna yep yalla mayon nako ko it nguur mbuur guur mbuur nguuru aduna bi mu elif ko yep ñaari maqama la ko yàlla joxoon ñooñ di jam rek kon nak war nañu sante yalla ndimbalam rek moy dox ndimbalam rek moy dox bo ak ci ku ngeen dimbali sax ci ndimbalam la kon nak ngeen yok farlu te xamne da ngeen àgg fi ngeen jëm oolu na nak bu baax yàlla ooloo ko ci seen jëm yi seen rafetna and na ko naa nut ko wor nak fu meuna jaar wor rek lay def lolou moy lan yalla na la ci yomu ala subre ndax ne ko ma sa borom nga ankay mu wàccee la ci kaw suuf de xool ndax loolu nga wax dëgg la mu ne la fàttaliku ma nga lànk woor nga waaye ku oyu si njàmm rek wor ba dagg na ndax dina la delloo ci la nga fàtte woon nga fàtt nga fàttaliku waat yal nañu ko yàlla fayal yàlla yokk leeram njabootam ak ay ñoñam ñëpp sant naa leen bu baax gërëm naa leen yàlla ngeen toog lii yàlla def ko mu nekk ay camion te fekk sax yéegu leen ne laal ngeen dara seen am yal na ko yàlla def wax dëgg yàlla maa ngi woolu yàlla ci yéen fi mu ñu ko jox ak fi ñu ko indi ak fi ngeen ko indi tey ñu nit ñu leen ko joxee fi ngeen ko indi bokkul de waaye lépp ci dara jaam lépp ci dara jaam la yàlla defal leen barke la yàlla defal leen teraanga la yàlla defal leen barke la yàlla defal leen teraanga nit ci jàmm rek la xej njëlbeenam jàmm la mu jëmit jàmm rek jàmm rek jàmm su amee yàlla delluwaat ci jàmm jàmm nit bi ko yàlla bindee aljana la ko dëkkal mu dëkk ci biir aljana moo tax nit xajut ci fitna jàmm rek yàlla moo bindoon aadama dugal ko ci biir aljana kon ndeke nit ci jàmm rek la xaj yàlla leen ko yàlla defal ñaan naa ko yàlla won na ma ko won na ma nguuru yonti yàlla Suleymaan ci kaw suuf daraja googu nag yéen la ko yàlla jox ci yéen lay jógee ak fu nekk jërë ngeen jëf suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon la dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne ko xaaritoon